Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum gars bëggee naa leen nag yéen ñëpp ah bëggee naa leen yéen ñëpp j'espère bien que ñëpp yéen ngi ci jàmm. tey nag dama leen di ñaan benn affaire gars yi que tout le monde sans exception nañu partager vidéo bi. su ko defee ñu mën a dugg ci biti waxtaan bi dafa import am importance ci man tey tey nag gars yi dara warul tey waxtaan bi genre parce que gis na lu fi am boobu ba tey mais damay ñaan ñu ci dugg s'il vous plaît partagé leen que kenn ku ne partagé ci benn page. pourquoi tey mu demande gars yi partage lépp ci benn page page kenn ku ne nga partage lépp ci benn page parce que dafa am la nga xam ne il faut que tey ñu toog ci waxtaan tuuti tey dama man. yéen patriotes yi y compris Ousmane Sonko amul leen lu ngeen di prouver ci yi amul leen lenn lenn lu ngeen di prouver ci Sénégalais yi xam ngeen pourquoi mu wax la am leen lu ngeen di prouver ci yi mooy depuis ngeen commencé nekk ci langue politique pour changer wala am idée changer politique muy yéen mi activiste yi ay njàqare ki métti métti ngeen ci jële mais malgré tout ngeen koy muñ te yàlla tax ngeen koy muñ yàlla tax pour sénégalais yi rek am intérêt tey intérêt boobu noonu ñuy am kenn ku ne ñëpp a ci amoonoo jàmm ñun kese ñoo ciy gañe contrairement mooy ak ñi fi jaaroo nga xam te ni bés buñ xëyee saa su ne kàcc rek la ñuy def ngeen baal ma ci kàddu gi waaye wax lu dëgg rek la ñuy def pour seeni propre intérêt par contre ñun ñuy xeex su ak ngoon pour intérêt général suba ngoon ñi reyante pour le bien de tous mais donc je me dis que yéen patriotes vous n'avez plus rien à prouver à personne leen lenn li ngeen di prouver ci kanamu askan wi ñi ëpp ci yéen tey suñ poste bu ñu ginee benn poste bu vacant ngeen postulé bu ngeen demee kenn du leen recruter parce que dañ di dàqale pourquoi parce que dañ leen di jàppee ne vous êtes des ñu ëpp ci yéen tey seen doom bu nga di yóbbee di leen inscrit ci yenn lieu ñu xàmmee seeni i visage duñ leen nangoo recevoir wala boog du leen nangoo accepter te mooy depuis ngeen commencé nekk ci chaîne politique bi qu'est-ce que vous avez fait en première mooy da ngeen njëkk wane ne politique lu noble képp koy def da nga war a doon ko set wicc ak barke gars yi s'il partage sa que tout le monde sans exception ne ko ñëpp partager parce que am daam fooy toll nga raal bool nga raal donc lu ngeen njëkk a andi ci chaîne bi mooy lan ne mbir mi mën na nekk de mais na ànd ak njub ngeen dem def la tout bokk ci ñi nga xamante ne ba ngeen juddoo ba léegi nit mënu leen a giñ cent franc du ci yéen du ci ñu ngeen di ànd seen biir du seen leader. ba ñëwee ba ngeen ñëw seen politique ba léegi yéen a ñëkk premier politicien ba njëkk a taxaw ci Sénégal taxaw ne fu ma mësee gis. ma sàcc fukki dërëm nan ko waxee wala ñu tëj ma jee me dis que personne kenn musta oser démentir que wane nga wane la contraire kon bu dee si lu jub ci wàllum koom-koom da ngeen ko wane sénégalais yi amuleen leen lenn leen ci prouver maintenant ngeen jóge foofu ngeen won ne sénégalais yi mën ngeen a def politique te du ngeen sàcc alalu askan wi je dis tey loolu sunu borom dogal ko depuis ngeen commencé ba léegi amul alalu askan bu cent franc bu ngeen mës a sàcc dugal ko ci seeni i campagne wala bokk seen i meeting wala quoi que ce soit muy waa Pastef muy leen patriote muy premier parti Sénégal bu ko mës a def ñëw def ñëw dama ne premier parti Sénégal bu mës a ñëw di def politique te mës a jël cent franc wu kenn yéen patriotes yi yéen ko def kon amatul li ngeen di prouver sénégalais yi rien du tout nag barke alxuraanu karim ngeen andi len ngeen ñëw andi don le choix muy nga jël li nga mën jox ko sa réew muy lan muy jël sa ñaq jox yoo yow sa idéologie bi nga gëm sa projet bi nga gëm pour Sénégal nga jël sa ñaq ñëw jox ko kon amatuleen li ngeen di prouver sénégalais yi dama bëgg tey mu leer entre ñun ak sénégalais yi ñuy seetaan dama bëgg mu leer entre ak ñun ak ñun ñu nar a déglu suba gannaaw suba entre ñun ak suñuy doomi ñëw. ëllëg ak suñu sët xam nañu seen bàyyi ñun patriote yu fi nekkoon seen bàyyi ëllëg ak seen maam yi ba xeex jotee danoo taxaw fayit ba mu waree ba fayit waree mat dama bëgg ëllëg mu leer mu nekk ay archive nax lii du dañati ngeen jël don de choix jox ko seen dëkk ba mat sëkk barke kon amatuleen lu ngeen di prouver sénégalais yi mosu leen a sàcc su kenn di ko campagne wala di ko dugal fu ngeen ko war a dugal ngeen ci loolu ngeen ñëw wane lan exemple ne jeunes yëpp dëkk dakaar ak dëkk feneen du la tey heure boo deful dara nga war a mën a mën a béy pour sa dëkk béy pour dimbale sa njaboot béy pour dimbale sa askan ngeen jël du ko def te laaju leen dërëmu état du état du financement wu kenn lu seen doole ak seen financement kon amatuleen lu ngeen di prouver sénégalais yi ñu jóge ci loolu su ne Sénégal fenn tilim na yéen patriotes yi ngeen génn jël seen i bale yàq seen temps ak seen énergie ñenn ñi tëdd seen kaw lal ngeen jóg bale loolu defar loolu ba mu set wécc te du ngeen laaj nit ñaar dërëmam pourtant Macky Sall bi mu fi nekkee ak Clean su suñuy milliards la ci sot di may booy ay 5000 di leen jox ay sandis kon yéen amatu leen lu ngeen prouver sénégalais yi rien du tout nag ngeen jugaloo ñu dem ci côté wér gu yaram parce que tey olof yu dëgër laay bëgg a wax ngeen jël seen i deret ne tey waa banque de sang sollicité leen ñeneen sollicité leen. ngeen jóg tey def leen ngeen def le tout dajale li ngeen am ak lu ngeen amul les gars partagez s'il vous plaît que tout le monde partagez tey aujourd'hui dañuy dem ba 3000 mille à la fois tey que tout le monde partage ça tey dafay dem directement ñu wax ak ñu dégg ñu partagez ça s'il ngeen jël seen yaram seen deret wi ñëpp bëgg seen deret ñëpp bëgg seen jàmm yaram ngeen dem ñu ñuux ay piqûre ngeen jël seen deret jox ko askan wi te yàlla tax te laaju leen ci dërëm kon amatu leen lu ngeen prouver sénégalais yi ñu ne crise am na suñu dof dofloo suñu doom yi dootuñu jàng dootuñu amati niveau ñu dajale suñu enseignant partout di def ay cours particulier kenn fayu ñu ñaar dërëm kon amatu leen ni ngeen prouver benn sénégalais yan patriotes di laay waxal de déglu leen ma bu baax ñu jóge foofu amul lu mën du laaju Sénégal ci ay financement amul parti bu fi ay lobby ay nguur jigéen financé wul excepté ñun te lu ko waral yéen waa waa diaspora waa Sénégal kenn ku ne dugal si cent franc fukki dërëm kon amatu leen ngeen di prouver sénégalais yi. ngeen ñëw ànd ak ka nga xamante ni ba mu doonee boobu ba léegi ba muy ànd moom ba léegi nit mënu koo takkal dara te lépp lu mën di wax ay risque lay jël parce que chaque jour intérêt français lay menacé chaque jour intérêt ñeneen nga xam ne dañoo jël takk ñu def ñu ay jaam. kon amatu leen yi ngeen di prouver sénégalais yi ngeen dem ba ci yàgg lu def ñu jël sunu numéro yi ñu ñëpp mettre ñu sous écoute di violer sunu vie privée mais ñu ne sénégalais yi tax ñuy xeex su ñun yenn administration ku fa dugg ci déposer extrait on fait exprès ñu tardé la ku dugg fenn pour di réclamer ses droits on fait exprès ñu xañ na say droits kon amatu leen li ngeen di prouver sénégalais ndaxte sénégalais yi tax ngeen di def loolu les gars ñu jóge ci loolu lépp ñu jóge ci loolu lépp ngeen ñëw xool la nga xamante ni Thomas Sankara bi ko waxoon dañ koo faat Mamadou Dia bi ko doon wax dañ koo sàkkal pexe tëj ko ay année lu mu ma bu ko jéemoon def dañ ko koo yàqal yéen ngeen ñëw taxaw jaay seen bakkat ak seen fitne ak fu ngeen mën di jaar lu ngeen gëm mooy Afrique ngeen gëm lu ngeen gëm mooy Sénégal ngeen gëm lu ngeen gëm mooy patriotisme lu ngeen gëm mooy am ngeen xam-xam mën ngeen cee génn soxla wu leen etu kenn kon amatu leen ngeen prouver Sénégalais yi te loolu da ko wane seen doxalin ak seen i jëf ndax mosu leen a jot benn financement étranger musu leen a jot benn xaalisu lobby mosuñu leen a jàpp benn yoon seen loxo ci poos ngeen di sàcc wala ngeen di def lu ngeen war ta def kon amatu leen lu ngeen prouver Sénégalais yi moo mën a wax gars yi ne leen man en ce qui me concerne personnellement et ñu ma déggal gis nga les choses bu changé wul d'ici 2024 dañuy garde man man personnel en ce ma me concerne garde naa Sénégal yóbbu naa sama njaboot à l'étranger màggal Touba moom fiy yóbbu bu jeexee barke Alxuraan Karim soxlaatuma Sénégal bu ma dee bu ñu fi suul tant pis kon amatul ni prouver Sénégalais yi. ñun bu ñuy jël suñu temps bu ñuy jël suñu temps di rey suñu bopp pour Sénégal def lu tout pour Sénégal di jox ay cours de vacances di may suñu deret di bay di financé suñu parti di wan sénégalais di leen sensibiliser di leen wan ne gëm ngeen seen bopp wan ngeen cee génn pendant ce temps suñuy moroom ñooy dem suñu morom ñooy dem di mar tànk yenn politiciens ñuy sàcc xaalis di leen ko jox à chaque fois ñun ñu lu koy xañ te pourtant bu ñu neexoon ñun tey ñu jóg def loolu suñu morom di def di am loolu ak loolu dawal 4-4 ndax kenn ëpp ëppalewuñu ko dàq ñu nu wax ëpp ñu nu xam-xam ëpp ñu nu nekkut ëpp ñu représentativité ëpp ñu nu ko ci dëkk bi ëpp ñu nu gën noon jëriñ dara ci dëkk bi te pourtant dañoo sacrifier loolu lépp ñëw ren pour jox suñu bopp suñu dëkk kon amatu lu ñuy prouver qui que ce soit amatu lu ñuy prouver benn sénégalais barki alxuraan que ça soit très clair net ñun fu nu mën di dem dañuy xeex dina maltraité ñeen andil sénégalais benn leader ba nga xamante ni ba mu juddoo ba tey ci Sénégal kan moo fi ñemee taxaw ne bu ma mën bu ma sàccee fukki dërëm. fukki dërëm bu ma ko sàccee nan ma jël tëj amul je dis fi défie quiconque lu koy firndeele lii ma leen wax dëgg la Idriss Seck barki Demba Ndiaye la fi ñëw bokk ci gouvernement sàcc ay milliards def déclaration de bien mu jël fenn Sénégalais yi toog ak sa ñàkk fayda di ko xool mu sàcc suñu xaas mu leew noonu te day dem noonu kon amatul lu ñuy pour Sénégalais yi que ça soit très clair net. ñu taxaw fii ñu nuy jiite ak ñu nuy jiite ak ñu ni àndal koo ci gis am na double nationalité ku ko amul ñett national ku amul nationalité États-Unis am nga bu France ñun ñu bañ bëgguñu benn nationalité toog fii nii kon amatu lu ñuy prouver sénégalais yi. ñu nu jiite kenn ku ci ne boo sàccul tabax ko Houston sàcc nga tabax ko France wala feneen ak nga dëkk buy buy toj nga génn ñun amuñu benn kër lañ am fii lañ dëkk Sénégal kon amatu ni ñuy prouver sénégalais leer ci bopp ñëpp. nan leer ci bopp ñëpp tey partagez ça s'il vous plaît les ngeen andi sénégalais benn leader ba nga xamante ni ba mu commencé dugg ci langue politique ba tey day ñëw wax lu africain yi waroon a dégg li waroon a dégg depuis boobu yàgg wax la économie souveraineté économique kon kooku amatul lu muy prouver sénégalais yi ndaxte kooku noonu bakk na mu ci xott mu commencé tudd la français fa di ko en cause dama ne yéen ñëw ngeen en personne yéen ana fi benn leader ba nga xamante ni ba mu juddoo ba léegi moom lañ gën a diaboliser te ndax lu tax gën koo diaboliser nañ introduire tuuti histoire les gars dañ doxantu tuuti introduire histoire les gars yi Fat Thiam génn na fi dama ne gars yi Fat Thiam génn na fi jabaru maam góor jasaaka kes ce qu'il fait nee na ba mu nekkee mosuñoo gis politicien bu mel ni Ousmane Sonko quelque temps ci leen comprendre Ousmane Sonko dafa am problème mu sax xaalis en personne mais gor la du ko yuuxu du ko wax kon amatu leen ngeen prouvé sénégalais yi muy benn fen ngeen toog ba tey gars yi ñu ay nit ne yéen da ngeen a am ay terre wër ko te yéen amu leen benn benn kër kese leen yàlla may ko am ko lu ngeen prouvé sénégalais yi gars ñu toogal ba tey ñu jël seeni leader saa daga génn bëccëgam nar a kàmm dama gum jëmm taxaw ne moom chaque jour doon gis Ousmane Sonko buntu kër Macky Sall mu doon ay fen yu leer nañu ay kacc kon amatu leen ngeen prouver sénégalais yi. ñu jóge foofu envoyé maître El Hadj Diouf les gars mu topp ci deru Ousmane Sonko chaque jour muy wax lu bon di yàq derem fu mu mën di toog te moom na ma yàlla jéggal damaa jox cër ñu may déglu mais kon dinaa dinaa jëndi xorom ni Assane Diouf mais damaa jox cër ñu may déglu. ñu yoon met El Hadj moom mu doon avocat bu gën a salte ci histoire Sénégal avocat bu gën a bon ci Sénégal nga xam te ni doon na ka nga xam te ni ba mu nekkee avocat ba léegi du défendre ay traitre ak ay jaam ak ay sacc je le dis bien El moo défendre Hissène Habré bi nga xamante ni moo jàpp askanam boom leen El Hadj Diouf moo défendre ki nga xam mooy Bougazelli bi si sàccoon ay faux bu fi sàccoon pare yemoon na ci defar ay faux billets El moo ko doon défendre El Hadj bul yoon ni muy yàq der Ousmane Sonko de déglu leen bu baax li mu leen wax bu ñuy yàq suñu der ñun parti dina saaga ak lu ne El Hadj Diouf bi fi Mamour Diallo sàccee 94 milliards yi moo ko doon défendre te xaalisu Sénégal yi El Hadj Diouf avocat boobu moo ko doon défendre dama lay wax état ñin état ñan lañ yónni pour jëm a yàq der kon ñun dafa am na xam ne ni amatu lu ñuy prouvé benn sénégalais barki alxuraanu karim El Hadj moo fi jël trimel yu gën a mag ci Sénégal fii mu leen di défendre ndax la leen dañ ko jox gay pour mu ani la pour mën a wax mën a kacc te pourtant suba lu mu wax suba ba ngoon jot balaa ngoon a jot ñëpp xam ne ay kacc la ngeen baal ma ci kàddu bi ñëpp xam ne lu mu wax nekkul dëgg kon amatu leen lu ngeen prouvé Sénégalais yi déglu mu wax de ngeen ani fi leader ba nga xamante ni dañuy jël benn artiste ba nga xamante ni yàggul dara ci histoire moo taxawoon naan moo fi gën muy Mame Gor Diazaka tey lan Macky Sall di ko neexal moom ak jabaram ak cent franc deux cent laa leen wax tax mu génn di kàcc suba ngoon di wax lu dëgg ci Ousmane Sonko. gars yi ñu jël yàggul dara ñu yónni waat ku nuy wax ab Abdou Mbow yan patriote barke alxuraanu karim amatula li ngeen prouvé sénégalais yi ñu yónni waat ki nga xamante ni mooy Abdou Mbow mu taxaw ne Ousmane Sonko dafa am restaurant Mermoz pour yàq derem yàq sa ko Sénégalais yi da ko wax huit heures midi ñëpp xam ne day fen ngeen baal ma ci kaddu gi nag maa ngi jégalu ndax sa ñu may seetaan laa respecté mais du ñu may wax kon yéen amatul li ngeen prouver Sénégalais yéen patriotes yi ñu toogaat quelque temps les gars non my God des fois da wax ba sa day jeex yow doo yow doo bëgg sax amati envie nekk Sénégalais yi. ñu toog ba mu yàgg ñu yónni ki nga xamante ni mooy Mansour fay mu taxaw kàccoon ne moom en personne mu taxaw wax lu nekkoon ci ginnaaw dëgg ne Ousmane Sonko da doon raam ci kalamam te loolu du dëgg dama ne Ousmane Sonko ba bëggoon tey guddi guddi tey Macky Sall fase Marème Faye Sall mu fase ko moom def ko premier ministre ànd ak moom bu ko bëggoon ñëpp xam ne du dëgg ay kàcc la kon patriote amatu leen li ngeen prouvé sénégalais yi. amatuleen leen ngeen prouver sénégalais yi parce que n'importe kii mën nañ ko indexé ci sàcc ak wax lu dëgg excepté yéen dëgg ngeen lu ne giñ ne leen fi ne ay si ngeen yàq seen der ak seen deru askan ne yéen ay si ngeen ñu wax ko tey balaa ngoon a jot ñëpp xam ne du dëgg ko ne amatuleen leen li ngeen prouver askan wi les ñu taxaw ni tuwel owel moo leen di financé même pas une heure ñoom ñu bind xamal ne ne seq noo ngeen ay financement musuñu côté def nu ko kon yéen amatule lu ngeen prouver askan wi ba tey ay kàcc ñu taxawaat fii ne leen taxawaat fii ne leen yéen bu ngeen faloo da ngeen di traité màggal ak nangam ñëpp xam ne Ousmane Sonko dafa am complice ak sëriñ si xam xam am complice ak diine ji muy jàngu bi muy kër diine yëpp. kon amatu leen ni ngeen prouver sénégalais yi ci dëgg ngeen nekk lu koy prouver rek li koy prouver keroog bi nga xamante ni jël wax bu ñaaw wala Macron taxaw wax wax bu ñaaw ak ay waakaram ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man jullit yëpp di ko naqarlu église catholique ñëpp di ko naqarlu Ousmane Sonko ba gars di défendre. Ousmane Sonko kese moo fa nekkoon di taxawal drapeau islam ak drapeau ngëm-ngëm bu mu mën di nekk Macky Sall au contraire ne ma fan la demoon Macky Sall dama ne au mu ngi woon Charlie Hebdo bu taxawoon di wax yonent bi salaay salaam lu mel ni xamee kon amatul ñu lu ñu prouver sénégalais yi. barki Alxuraanul Karim on n'a plus rien à prouver aux Sénégalais que ça soit très clair et net. dama ne bi ñu taxee fi di yàq der yonti salaay salaam nit ñi di défilé Ousmane Sonko mu kese moo fa ñëw ni ñu ko jëlee parole mu ne man mukk lii du ma ko mës a def gain politique sama war a gar la dama koy def na ma ko war a defee au contraire Macky Sall moo fi génnoon fii ñëpp di teg bët mu dem di défendre Charlie Hebdo doo Hebdo j'ai bien dit bi fi nekkoon doon xas yoon di xas yoon si salaay salaam naan liberté nag su doon kon ñun amatu luñ prouvé sénégalais yi ñu pare jël ma jàmmal jaañ ma jamal jaan ñëw xëy suba ngoon jot nekk suñu der di wax lu dëgg te lu mu wax suba balaa ngoon jot ñëpp xam ne lu dëgg kon on a rien à prouver aux sénégalais amatul lu ni prouver sénégalais damay toog ba mu yàgg ma ne yéen ngeen bëgg damay toog ba mu ma ne yenn sénégalais yéen lan bëgg soit da ngeen a bokk ci ñooñu xam te ne suñu xel yi dafa torox wala ngeen bokk ci ñooñu nga xam ne suñu xel day yeew ba faw ñu toog ba ba tey dañ doon def suñu meeting ay nit romb dina provoqué di dóor suñu boy lu ne ñu toog yaru musuñoo def lu ñaaw musuñoo wax lu ñaaw ñëpp toog ñu taxaw fii nenu du ngeen matal parrainage ñu gëm suñu gëm gëm lu ñuy def matal ko jàll kon amatu lu ñuy prouver sénégalais ñëpp toog na du ngeen am ba un pour cent ñu toog am pour quinze pour cent des sénégalais diñ nag te sàcc ñu suñu résultat ñu diñ ñoo nu voteel kon amatu lu ñuy prouver sénégalais te kenn joxu ñooñu sandis kenn joxu leen set kenn naxu kenn aayowu leen kon amatu lu ñuy prouver sénégalais yi gars yi ginnaaw bu ñu waxee loolu lépp ginnaaw bu waxee loolu lépp ñu ñëw di ko dox ci sénégalais te kenn mënu tee teg benn loxo kenn mënu cee weddi dërëm ci lii nuy wax kenn mënu cee wax dara lu aay les gars partagez s'il dama ne ginnaaw ban toxee lii lépp ginnaaw ban jëfee lii lépp jëf ko mu leer sénégalais ëppul kenn ñëpp xam ne ñi ñëw ko jëf ñu ñëw ko jëf ñoo ko mérito ëppul kii que ce soit nga xamante ni bët bu set ñëpp umpul benn sénégalais dañuy fexel jëm ñoo nangam ay sénégalais ëlbitikuwaat di complot yenn sénégalais dem di ko def seen bopp wala di ko gëm ci kaw loolu ña leen naxoon ña leen doon kacc ba ñëpp xam ne ñi da leen doon kacc ñooñu leen yónniwaat tey ñiy taxawaat di yàq suñu der partout dama ne les mêmes personnes leen yarawaat leen yónniwaat ñu taxaw ci kalamu askan wi taxaw ci kalamu senegal yi mel ni Sénégal yi ay xarlan mel ni Sénégal yi duñu xalaat mel ni senegal yi duñu ay nit taxawaat di kaccaat askan wi même kon ñun amatul lenn luy prouver Sénégalais yi ay Aïssa Diop Fall ay Cheikh Yérim sekk ay Madiambal Diagne ay Les Échos ay Sénégo ay nangam Macky Sall taxaw fii ne damay jël damay jël opposition bi def ko poussière ñu ñëw taxaw ñun ñun kese ñu ñëw taxaw fayet sacrifier suñu vie sacrifier suñu carrière sacrifier sunu lépp mu leer na instant bi on court des risques partout là où on va on nous menace même partout par téléphone et par message messenger et autres te suñu porté plainte duñ ci génn mu leer na kenn nu couvrir ñun on n'est pas à l'abri te pourtant ni am doom comme sénégalais yëpp kon ñun amatul ni pourvait sénégalais yi tey liñ ko giñ xool leen procès yëpp ak tey ak li mu demee yëpp da A à Z tey Sonko bu doon dafa soxla ay bu doon dafa soxla ay jigéen barki alxuraanu karim cinquante pour cent sénégalais jigéen ñëpp dañuy daw dabi ko barki rasulillahi comme na ma ko waxee woon réewunu yaru nan am nan xam-xam tey nan dal nan te ay jantal gaay nan ku mu neex ku mu naqare ay jantal men ndax dun ay sàcc dun ay fenkat pour mu leer ci ñëpp pour mu leer ci ñëpp barki alxuraanu karim suñ ko bëggoon noonu koy def nit ki taxaw ne nit ki dafa yor ñaari arma di ma menacer pour sàkku ma benn ba ci njëkk jàpp ñaari loxoy téye ñaari arme te koy sàkk dong koy téye mu dëgër këcc muy benn kàcc ndax nit kan xam dañuy ñëw pour sàkku la wala dañuy ñëw pour violer la di nga taxaw ne ah ana diw di ko laajte ana diw foo toll di laajte diw xanaa diw di ñëw xanaa diw du ñëw wala boog da ngaa yàkkamti woon mu ñëw ci yow muy benn kon ñun amatu lu ni prouver sénégalais yi kooku ñëw. pour des raisons médicales ñëw sacrifier laay fam ñëw sacrifier carrière am parce que état yàgg na koo topp laaj ko loo bëgg ñu jox la nga bàyyi lii ngay def ànd ñun mu taxaw bañ su ko neexoon tey milliardaire lay nekk ñu Idrissa Seck bu ko neexoon tey milliardaire lay nekk comme yeneen sàcc yi fi nekk A ba te kenn du ko dindi. bu ko neexoon day nekk milliardaire ni nga xamante ni mooy Macky Sall déclaré woon ay biyam huit milliards da man ne mérité ko mënu ko am ay askanam ak i maam mu bu dajale woon liggéey mënu ko am kon ñun amatul ni pour Sénégalais yi kooku sacrifier carrière am sacrifier carrière xam dafa am problème mu fay te ay militant sax yëgul na ko ndax buñ ko yëgoon du demee noonu ndax attanul coût bi nga xamante ni moom la war a mën a fay pour ay traitement am ndax diiñ ndax gore ndax gëm boppam ndax bañ a ñaan di ko muñ yoon nag lañ ko teg ñu dàq ko ci injustice mu sacrifié léppam su ko neexoon def ñu ay moromam ay Cheikh Omar Anne su ko neexoon mu def ñu Mamour Diallo am 94 milliards su ko neexoon mu def su ko neexoon su ko neexoon su ko neexoon di ko neexoon tey mu sacrifié laay fam sénégalais dem di gëm yéen ni kon ñun amatul ñu prouver sénégalais kooku ñëw tey nit ki nga xam te ni moo ne woon moom da koy violé nit kii moo taxaw ku mu denal ne ko génnal bul ñëwee bul xam Ousmane Sonko bul ko jéem a xam bul jéem a ak moom pourtant moo ne xare xaritam boobu génnal ndax ma mun a def li may def te pourtant borom salon bi mi ngi doon dégg muy communauté mu leer ko ne muy comme ay nit mu toog jàpp ñaaram mu jàpp toog jàpp ñaaram ñaamuram sénégalais yëpp xam ne lii commune dañuy kacc dañuy fen te pourtant sénégalais ñeen ñi gëm nañ ko kon ñu amatul ku ñuy prouver quoi que ce soit que ça soit très clair kooku ñëw. victimiser wu nu mu ko neexee daw génn kat kat génn ko man couvre-feu bi gis naa ay nit du génn Dakar ñu duma leen ba ñuy xool benn place ñu jël kenn ka nga xamante ni parce que dafay sol et lan insigne APR lay sol ka nga xamante ni day soñ insigne APR ka nga xamante ni dafa bokk seen militant génn amul benn droit génn génn période couvre-feu ànd ak benn avocat ànd ak benn docteur ñuy génn tamamba lu mu leen neexee te man sañu moo ko ëpp ëppalewul ma dara ci dëkk bi kon ñun amatu lu ñuy prouver sénégalais yi kooku ñëw jël si kooku nga xam te ni tekkiwul benn dërëm tekkiwul benn dërëm mu jël si ko pour ñu teg seen i kon ñun amatu lu pour prouver sénégalais yi ñu jóg directement viser ko pour jëm ko ridiculiser yàq ko waaye ku yàlla defar ba nga defar kenn mënu la bonal ba nga bon dama ne sunu borom ku mu defar ba nga defar kenn mënu la bonal ba nga bon kooku ñëw tey 4-4 jël si ko ñëpp xam ne 4-4 ko jël si ñëpp xam avocat bu bind lettre bi ñëpp xam kan kan moo tëral ko bi ñëpp xam kan ak kan moo ci nekk sénégalais yi ñenn ñi jóguñu mat fa nar a mat ñoo défendre seen démocratie ko ñu amatuñu ni pour sénégalais yi. ñu toog yaru mu su mosuñoo provoqué mosuñoo seq nit wax ju bon mosuñoo def lu bon ay nit ñu fekk ñu taxaw suñu bundu kër leader di ko défendre di ko défendre di manifester suñu solidarité. ñu ñëw ne dañuy tax suñu manifestation te pour ça Mansour Faye ci période Covid 19 bi la taxaw Mansour Faye di inauguré ab pont mu fees dell te kenn ñemewu koo tas ko ñun amatu lu ñuy prouver sénégalais yi Macky Sall fii la fi organisé anniversaire am woo ay artistes ñuy way ñuy samba mbayaan di def lu leen neex te kenn ŋaangul kenn waxul ko ñun amatu nii ñuy prouver sénégalais yi. ñu fekk ñu fa provoqué ñu looloo si ñu ndox commencé tar ay rek ñu jàmbaarloo ak ñoom parce que xoolal dama ne constitution moo moo la permettre nga défendre sa bopp foo mën di nekk ñu défendre suñu bopp na mu waree défendre suñu bopp kon ñun amatul lu ñuy prouver sénégalais yi. toog ba mu yàgg man poser question yi laay poser gars yi gars yi question yi laay poser est-ce que ñun nekk nit wala danoo bëgg a nekk jaam dëkk ba nga xamante ni lu ñu jóg teg nu ñu nangu. lu nu wax ñu nangu yenn jeunes yi jël seen xel yi ngeen baal ma di ko cagatoo ngeen baal ma yenn xel yi jël seen yenn jeunes jël seen xel yi di ko cagatoo pour mën am xaas bu lewut uniquement pour ñu mën leen a barkeel dama sunu neexoon pour am barke ñëpp barke baay barke ñëpp donte am na barke baay ak barke ndey buñ bëggoon barke mbedd mi dañuy dem di def def ñëpp ñuy def di sàcc foo mu doomu diw bi ak mën a maye mais ñu bañ loolu gëm suñu bopp di dund ak suñu dignité kon ñun amatul ñuy prouver sénégalais ndax fi Sénégal boo bëggee doon dara da ngay si ay milliards di romb di maye di toroxal nit ñi gars yi di topp sa kaw dina dara nan la yaay buur yaay garmi te ñun mosuñoo dox ci loolu kon amatu lu ni pour Sénégalais yi may laa ci nag est-ce que Sénégal dañoo nekk ñun askan woo xam te ni dañoo torox wala ñoo bëgg a toroxal suñu bopp est-ce dañoo ñàkk fayda wala dañoo mat lu nu doon. est-ce que da toog naan sama yoon newu ci boo toog naan sama yoon newu ci sa jàpp ne sa rakk sa mbokk mu ngi ci gaal gi chaque jour di dem di dee yaa ngi toog naan sama yoon newu ci demal waa àll bi seen mbokk ya ca woon ya ya ca ya ne woon Dakar di taaba taaba ambulant waa seen sagaru cantine fii leen xëy bëccëg nar a kàmm tas seen i cantine te mosuñu leen a aider mosuñu leen a appuyer pour que ñu mën am seen propre cantine parce que amuñu les moyens say boo toogee naan sama yoon newu ci ñu ngi jël say di licencier maanaam di dàq ay sénégalais yu fa doon liggéey parce que entreprise nationale yi gagné wuñ fukki dërëm gagné tuun benn marché luñ am Macky Sall jël ko neexaree ko Macron ak waa këram kon ñun amatuñu ni pour sénégalais yi. loolu sax su ma ci continué de ñun ñu ñëw taxaw na leen kaa leen nan la ñëw jógee ci buumub njaam nan la ñëw am suñu fulla ak suñu fayda na la ñëw pare jël tous les risques pour changer suñu Sénégal nan la ñëw pour jàngaat ñooy kan nan la ñëw pour jàngaat suñuy xam ne la ñëw pour jàngaat suñu aada ak suñu cosaan nan la ñëwaat revaloriser wala bokk mayaat doole suñu kan suñu culture ak suñu aada ak cosaan ñu taxaw ne ñun ko def ñu taxaw ne leen ñëw leen ñu bokk sunu lépp gëm suñu bopp moo tax sénégalais yu ma xam yëpp yu bokk ak man doon ay cadre fa nekk à l'étranger kon ci Sénégal xam lu mu lay tontu gayen ani ma benn financement Sénégal finance investir ma Sénégal te ñëw ma Sénégal xam nga lu ma fa ñëw vacances un mois waajur delluwaat ñoo yey nag ñun ñoo fi ñëw xam ne dëkk dëkk dëkk bu am bu ëpp ay moodu-moodu yu ëpp luy dugal alal ci seen dëkk Sénégal la ñu ñëw ne dañ def banque ba xam dana permettre moodu-moodu ku ci liggéey ba war a retraité boo ñëwee fi fekkaat sa alal boobu mën a investir Macky Sall di ko tricher mënu ko toppandoo léegi du may laaj ñun lan la ñuy prouver Sénégalais yi jub ñu won leen dëggu ñu won leen gëm sa bopp ñu won leen xeex ñu won leen fierté ñu won leen. bañ a sàcc ñu won leen dund ak dignité ñu won leen valoriser suñu bopp ñu won leen kon ñun lan la ñuy prouver ci Sénégalais yi laay laajte man a ak gisatuma ñun nu war a mën a taxaw ba mën ko war ko mën ko prouver Sénégalais yi te pourtant saa bu ñu xëyee wax bu ñaaw ak jëf ju ñaaw diñu surveiller lan dëkk ak ñun Sénégalais yi depuis ngeen nekk Sénégal ba léegi jox ngeen Macky Sall vingt huit mille milliards Macky Sall fii ma taxaw ci ci Diourbel may may laay fii fii Diourbel conseil régional tout près fii leen defoon conseil des ministres décentralisé mu diggoon ni deux cent deux cent quatre vingt dix neuf milliards de francs CFA ne bu ko defee suñu dëkk bii ndoo nit ñi di liggéey nit ñi am jàmm dama ne boo ñëwee fii ma dëkk daw Bawol ba tey booy tey la dàq chemin Jakarta buñ ko dawlu du am deux cent mënu ndékkee te Jakarta yooyu ñu dawal chaque mois da leen fay leen deux mille ba ci trois mille francs yu ñu tegul fenn sa juju retourné ci ñoom jamais tey la suñu mbedd yi gën a tilim tey leen gën a torox tey leen lu jàq réprimé tey la sunu doom yi dàq ñuy grève ñoom boo pendant ce temps dama ne Amadou Sall doomi Aly Ngouille Ndiaye yeneen ñeneen ñu ngi jàngi à l'étranger fas yéenoo jiite waa suñuy doom suñuy doom nekkaat seen i jàmm est-ce loolu la leen loolu loolu est-ce na war a mën a continuer kon ñun amatuñu li prouver Sénégalais yi xam nga yéen a ngi may déggam déet ci diggante bi Macky Sall taxawoon fi diggoon Sénégalais yi ne su ngeen moo joxoon kese kese quatre mille mil quelques milliards de francs CFA. ma développé loo Sénégal jëlee Sénégal ci ndóol jugee jugal ko ci émergence tey Sénégal reculé ak ay points ci wàllum ndóol yéen ngi doon wax fan cinquième pays bu gën a pauvre teg leen seen bopp ci vingtième pays bu gën a pauvre ci àdduna ak st yu bees yi kon ñu ni amul lu ñuy prouvé ci sénégalais yi est-ce que ngi may dégg bu baax tey fii ma dëkk ci Bawol benn usine moo fi doon fonctionné boo yëpp da ci liggéey ak suñuy papa yi ak sunuy mbaam yi tey boo demee fonctionné wul Javel moo fa ne employé wul dix personnes booy Jurbel benn liggéey mu fa xëy marché Ndumbe Diop moo fa am boo fa xëyu demoo liggéeyoo foofu noonu jaayoo jëndoo doo job wala dawaloo Jakarta te lii ñu dal nii Bawol moo dal waa Kaolack booy amuñu métier boo dawaloo Jakarta doo def dara su ne ñaata doom lañ jël wala ne orienté à l'université kenn orienté wu leen sunu ñaata doom lañ téye war leen faj tey ñu nekk ak sunu yaay tey mënuñu faju ndax lan ay coût médical yu cher coût faj ya nga xam ne ni kenn amul ko kenn attanu ko tey dem nañ ba troxal sunu mbokk ci àll bi di leen dig ay juróomi junni naa leen ay bourse de sécurité familiale kañ leen ko gëj a fay dem nañ ba xaalis boobu noonu ñu dépendant ci suñ ko amul duñ jënd ceeb dem nañ ba Covid 19 ñëw ñu jël nit ñi di leen sarax ay ceeb yu baaxul yow sénégalais bi nga toog ba tey naan sama yoon nekku ci naan sama bopp laa res dëkk ba nga xamante ni sa bopp nga res te pourtant buy lakk sa tànku maam moo ci njëkk a lakk nga toog fi nga toog naan sama yoon newu ci dëkk ba nga xamante ni bu la neexee faloo président may ay buur ngay ngay fal. buur yooyu nga fal ñooy taxaw taxaw ne la yow ñi nga gëm ak ñi nga gëm duñu dara ay citoyen ordinaire lan toj ñu fenn ba tey ngay ànd ak moom di ànd kooku mu lay ndax ak ay saako ceeb ay sandwich toll nan fa nga xamante ni ci Sénégal ñun patriotes yi dañoo war a toog jàkkaarloog sénégalais wax leen dëgg ne leen bis ni tey dañ leen di ba ak li ngeen bëgg seetaan leen ak moom di d'ici quelque temps bu leen takkaate bu mu jaam ngeen bëgg a faju du ngeen faju ngeen bëgg a naan mu tëleen ngeen bëgg a liggéey mu tëleen ngeen bëgg a tekki mu tëleen ngeen di aw ci gaal gi di dee lijjantiwu leen dama ne ngeen di xiif lijjantiwu leen ku ci génn wax sa soxla mu duma ku góorgóoru ba taqale am dara loo mën a jëfandikoo mu yàq naan na su ma nee waaw nga ne waaw danoo war a am fu xam dañ fa war a toll toog seetaan leen ak kooku noonu foofu leen war a toll ñun. ba xam te ni di ngeen jóg yéen seen poste seen bopp ñëw di ñu raam naanu sarax leen lu ngeen ñëwaat ñuy bañ jamono Sénégal toll na fa nga xamante ni bu doon metti ñun waa Pastef ay cadre lan fa nu nekk wala fa nu nekk ña ngi fay daal suñu doole mosuñoo ñàkk jom bu saako ceeb doon jal chaque mois vingt mille francs wala muy jal chaque mois cent mille danañ ko jënd suñu njaboot na dund waaye tey bu ñuy rey suñu bopp pour ñu ñëpp ñu ne ñëpp ñu bokk ko bu ñuy rey suñu bopp ñu ne ñëpp ñu bokk ko kon question bu may posé waat encore mooy lan la ñuy prouver ñun sénégalais yi est que amati na lu ñu war a mën a prouver les sénégalais est-ce que duñ ba mu dëkk toogaat ba mu yàgg ñu ne ñun lu ñuy daj métti na da ngay génn sa waa koñ di la ree naan la kex kex combat ngi nii ngay génn say yaay ak say baay naan la yow tekki woo amoo jom parce que yow nangu woo ñu ger la. nga ànd ak say morom ñu ger leen maanaam ñu sàcc jox la ñu dawal seen i 4 x yow nga am sa fula di dox wala di dawal sa sagara moto nga romb Sénégalais naan tojoo fenn kooku ñu koy ñu koy taggali maamam fu mu ne taxaar su sàcc sàcc nga am sa ngor tey nga déposé fenn war a mën a am promo ñu bloqué la nga bëgg a gañe ci marché ñu bloqué dama laaj ban dund moo jarle te ñun ñu koy xeexal est-ce que jar nañ ko ñu ni xeexal suba ba ngoon jot est-ce que jar nañ ko ñooy romb ñu réew yaa nga ne wala ñooy romb ñu booy moom foo leen fekk ñu ngi wax pour di naan dañuy ñoom ngay ñëw ñu tag naan la waaye jaajëf waay gaañ yéen nga ci jaajëf waay nga romb leen naan xoloma kon bi te pourtant ñooñu ñooy toog seen yaay feebar guddi ñëw di la fëgg kaa yóbbul ma ko wala may ma du ma jëndee ordonnance wala jot tey dépasse am. vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.